waaw ñu ngi leen di fay bu baax loolu ci ndimbalal soxna Aïda Sylla mi nga xam ne mu ngi jiite mouvement bu ñuy wax ndam te euh, xam ne liggéeyam lépp ci social la jëm di koo xam ne jigéenu président la waaye bi moom bi lépp di nit koo xam ne ku bëgg Bawol bëgg Touba yaakaar naa ne jàppale président Macky Sall Touba du jafe parce que président Macky Sall dafa liggéeyal sëñ Touba liggéey boo xam ne ñëpp teg seen bët yaakaar naa ne lii mu defal Sëñ Tuubaa Senghor bëggoon na ko Abdou Diouf bëggoon na ngi àgg la mu defal ko Sëñ Tuubaa defal ko waa Sëñ Tuubaa defal ko Sénégal yëpp yaakaar naa moo tax na ñu mën a mobiliser lii kon nag ñi ngi sant soxna Aïda Sylla di ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex di ñaanal président Macky Sall suñu borom defal ko tawfeex di wax mbooloo mi nii nii ñu ko àndee ba wote jot nañu ànd ak suñ fulla ak suñ fayda xëy suba teel sangu ba set ndekki ba suur dem woteel président woteel président Macky Sall mu tour yu àndut ak coowoo te yaakaar naa bu ba xam ne àgg nañ ci suur élection yi ca ngoon danañ xam ne liggéey na ci Touba waaye ñi mu àndaloon ñu nekk Touba it yaakaar naa ne liggéey nañ président Macky Sall kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum man maay Kouma Ndiaye bokk ci mouvement ndam ki waaw tey ngeen ñëw fii seet euh, ngeen seet si Adja Aïda Sylla ngeen fekk mbooloo mu tax ci biir Touba. Hmm. bi ngeen seen xel war dal na balaa ñu ñëw sax suñu xel dal na rawatina bi ñu ñëwee ndax xam nañ li mu fi liggéey xam nañ li ñu fi fekk xam nañ ñi fi bàyyi ñi fi bàyyi xam nañ seen i compétence xam nañu leen moo tax bi ñuy ñëw xel mu dal la ñu ñëwee ndax xam nañ li ñu fi fekk ndax booy seet. Euh, lii du liggéey benn fan liggéeyu lu yàgg la dañ ko liggéey ci suuf boobu ba mu sotti ñu doo ko yëkkati ci kaw bésu Macky sàll bii pareeguñu sax ndax tey 63 car jóge na fi ak délégation bi nga xam ne demagul ak ñi ñuy xaar pour ñu ñëw ànd ak ñoom te bu ngeen ñëwee ba ca béréb ba aussi di ngeen xam ne Adja si la euh, présidente mouvement Ndam liggéey na te li mu liggéey te li mu liggéey liggéeyul ko kenn ku dul doomam Macky Sall uti si dara bugg si dara dafa xam ne rek doomam la tey liggéey ci Sénégal moom mu yore nationalité sénégalaise di yaay Macky yaayoo ko mu nag muy joxe participation ci li nga xamante ne mooy ay réalisation Macky sàll mooy jottaleel ko loxoom fu mu eggul jàppaleel ko ay nitam ndax Touba gi kat wax dëgg yàlla ku leen yëg ñu yëg la ku leen yëgul duñ la yëg lii ñu fi am nii liggéey la. xanaa bu leen gisee nii seen xel dina dem ci Touba mokk na rumbax. waaw mokk na rumbax ndax euh, wax dëgg yàlla amuñu dara. boo jogee Dakar di ñëw fii Touba li ngay tasel ci yoon bi dañoo ñëw ba ñoo amul benn oto bu ñu amuñu benn embouteillage amuñu benn problème muy Ila Touba bala ngay dugg Ila Touba bi itam euh, autoroute à péage ba ca yoon bi euh, euh, yi Macky Sall yi réalisé yeggale ko ndax nag nit dina fekk béréb ñu commencé ko waaye doo ko yeggale ndax sa tële waaye nag bi muy ñëw dafa am lu mu fi fekkoon waaye moo ko yeggale ba loolu sotti te yeggalee gën a métti finition ku nekk xam na ne moo gën a métti kon nag euh, ñun bi ñuy ñëw xam nañ niñ fi fekk meneen bi ci des mooy Macky boo demee ci éducation bi lim ci def gis nañ ko santé bi lim ci def gis nañ ko social bi itam li mu ci def ku nekk gis na ko nag moo tax présidente ndam social ñëw na nag képp kuy woote social dinaa ànd ak yow rawatina nag kii woote social nekk doomam mu di ko jàppale te nag jàppale bi nag day doog a commencé li ngeen fi gis nii yëpp commencement la de yeggaguñu fi ñu jëm te bu yal nañu yàlla dimbali ba yegg fii nag président Macky Sall ubbee si mitigam fii ci Touba am nañ fi yaakaar bu wér koo yëgul doo dem ci moom ki nga yaakaar ndax li ñuy wax aawa na la jik fii mu ubbee campagne bi xam na bu baax li muy def xam na bu baax li fi nekk xam na bu baax li ko fi xaar moo tax mu ne naa dem Touba ubbee ko fa ndax Touba kat lañ ma dencal bu élection ya jour élection yi 24 incha allahu rabi ah ca ngoon bu soobee yàlla ku yëkkati loxo Touba dina yëkkati loxo jëmale ci Macky Sall incha allahu rabi. Madame euh, Sylla. On est très content de faire partie comme avec euh, sénégalaise et nous soutient euh, totalement euh, le président Macky Sall. C'est pas aujourd'hui, depuis hier. On souhaite une bonne continuation avec le Maroc et le Sénégal. Et merci.